ma jamono eh, loo defe ni wees na weesu loolu mosuma koo gis dañ la koo deful bul ne amul da nga naan gisuma waaye amul bul ko wax ndax man naroon naa judd ba dee du ma ko xam dama ko daan dégg rek lii damaa def woon gone yi daan soog a juddu seen sàttu da la ci ñuy wacc di wala wala di lañ ko daan defal waaw lii ba may lekk yépp nga ma defal lii ëpp na te nag laase damaa defoon ci dàll la yam yow nga jëlee ko ci daal indi ko ba ci dënd laajte sa dënd. tamit papa dañ nekk papa boo may wax papa day am neex neex buy jógee sama catu tànk yi bi nekk ci sama boobu. boobu noonu xom mère noonu loolu ko. sama cousine la dañ ma leen a ah, jox. waaw. waaye yi xeeti beñee lan la. lii dama doon foo ak yow rek lekk nga ci ba suur. mënatuma dara. añ bi nag nga ko. naa ko bu baax. ceeb bi ma ko toggee la nag. sandaal yi kay laa xamul defoon naa ndaa ci pénc rek la yem. lii. la yu baax yi ñoo fi am. xam nga boo am gan bu doy ni yow. yàlla foog nga defal ko yu baax yi. waaw kontaan nga. ñu mel ni booy waali moom booy waali Cheikh xam nga ko. waaw micro boobu mu yor di way. ah bu doore bi. ah dégg nag man lee ma ne ci yow da nga naan nag sama fiche la. ah wallaay. xoolal sa poivre sel yi fii nii. ba ba bu ma laal foofu. dama man ñii daf ma ne man dama la bëgg. xaatim dama sensible nag fii dama sensible nag fii fi may bës ne. waaw foofu nag gis nga am na loo xam ne bu ma boo foofu fay laal day am lu antenne buy jóge foofu di ñëw fii émetteur bi fii laa koy capter. Ah. waaw dama damaa sensible foofu. papa waaw yow daal den ñëw nii kër gi tijjil naa la ko. dégg nga lii parce xool naa ba xool waaye yow mii man yow laa bëgg. dégg nga loolu sa xar mi. Mhm. waaw ñëwal foofu sa xar mi xam ni day yëg de. xam mi daal dama koo jënd mu bañ a màgg naka ma la ko dig rek xar may màgg. ci man la mu nekk nii lépp loolu laa la deeti jéego macha allah na sa xol sedd. yàlla bu ma ñibbeeti. ah déet faaw ma fi yàlla defal bàmmeel. ba ma faatu woon ci say bu ma kenn tiim defal ma lépp. maa la wax lii. ah loolu neex na. maa la wax lii loolu nga ma wax. man maa la ko wax man yaa ma gënal xale yeeg jeunes yeeg ñoom seen nga xam ne dañuy doore jël ligne. 24 heures sur 24 allo bébé Fone. loolu que yow. macha allah boo yooyu nga xam ne seen caleçon yi balaa ñu koo simmi. rëdd farata gi fii ñuul ko. maar day imsi. ñu naan dañ dañ dañuy koros koros. bul dugg ci waxi gone. man fa ma nekk sax laa gën a bañ. parce que ay sawak ay gannaaw kër ak ay sër yu forox ak lu ne ngay gis. gone yi di yuuxu tëggum sabar meeg carte geeg gis nga ma nii. parce nga xaw a xam nga ratatouille. yi dañuy jël légumes yi ci àdduna yëpp boole ko ci cin sànni ci xorom togg ko mu rapajoo sama kanam ngay raw ratatouille damaa bëgg nga dindil ma ko ba mu set. lépp bay yaa ngi si jàmm billaay yow sa ndugg dafa rafet macha allah ah sa ndugg bi rafet na ba pare nga def ci fir wi ah lii moom macha allah macha allah ça yaa si jàmm waaw man de xoolal damaa jaay buñ jaaroon fii rek pour nga jaaraaf man fa nga daan jaara man nga jàppale ma daal ma lebal tuuti ndugg ndax fi mu nekk nii maajoo dafa dafa dem dafa kii tukki te instant bii nii xoolal ceeb bii sax julde moo ma ko lebal julde mii moo ma ko lebal léegi dama bëggoon nga dimbali ma rek lebal mu ndugg ah ma daal di dem daal di taal na xale yaa ngi may xaar te jamono neexul xam nga ndugg fu mu ne nii dafa seer torop ah, am nga am nga temps yi dangaa jëloon fii ay ndugg mënuma lebaat encore xanaa nga jàpp li ma bëgg sax bariwul daanaka de doggu géej gi doggu yéet chou-pommé carotte ñambi mhm. batanse ak kaani xeeñ xoolal ak ak oignon gi nga yor bu fere bii rek jeex na loolu rek la bëggul ba li bëgg bariwul waaw joxal rek tuuti ay waay xoolal jàpp ci rek xam nga moom nag bu xasee ba bañ xoolal jàpp ci rek hmm, billaay jàppale ma rek waaw yokkal tuuti sa ko yow tamit xoolal billaay yow kon julde da ngaa tey jii daal kon julde man duma am daal tey kon daal maanaam tey bañ nga rek lànk nga waaw garaawu kon bu yoon jeexoon rek waaw suñu jeex bàyyi ma dem uti feneen rek gidiyor direkt. Qui fuga? Mm. Ah. Povar? Mm. Sono cusena. Magno. Nanga Dev. Mm -mm. Uh, uh. Hey. D'accord. Mm. Yeah, well. mm. dara ah ah ala xaw ma kan ah xaw ma ko xaw ma ko aywa Yeah. ei, ei, ei nga def yëpp ci yàlla. xam nga ne yàlla am na. daa xamoon ne yàlla am na. kon ko fambam yi. xam nga ni foo demee duus kenn du fa ne. ci lan fekk fi wann gii rek lépp di wann sa wann bu rëy gii. ma ni ñi ñi waaj yow. lan la. waay waay waay waay waay waay waay. What? fëti na mel ni na muy jugal jugal jugal jugal massa jugal jugal jugal eh mm. eh. Eh, eh, eh du yooyu uy du yi moom yi man mii fu ma jëm am am na yenn jàng yi saa yoo sax solo solo la woo di nga xamee yoon bi mm.